salaamaaleykum Salam mbokku Sénégal yi je reviens encore hmm, loolu xale yi di wax naan il faut mu am ko wax il faut mu am ko wax je pense que il est en ma wax mais cette fois-ci ñan lay waxal opposition bi lay waxal toog naa toog toog toog ma xalaat xalaat xalaat xalaat il faut mu génn il faut moi encore. Ligne dans Quand dal opposition Sénégal l'opposition sénégalaise moo ñu là, problème vous nous avez taxé de tous les noms d'oiseaux qu'est-ce qu'on vous a demandé qu'est-ce que maître Abdoulaye Wad vous a demandé Yon, ki nga xam ne jaar na ci fukki junni yoon di jéggi xaaxam yi di jéggi xaaxam yi ba léegi tey même boo takkee ay bëtam sax mu mën a jaar ci yoon woowu mu ne la amatuma soxla ci yoon wi waaye bëgg naa leen boot bootu leen sama ginnaaw jaru sax ngeen di xool bootu leen rek sama ginnaaw ma jaarale leen ci yoon wi man bu ngeen jàllee ba pare mën naa noppalu ngeen waxtaane ko moom ngeen signé mu signé vous l'avez trahi vous l'opposition sénégalaise vous l'avez trahi vous avez trahi maître Abdoulaye Wade tey jii juróomi fi Togad, Sall di toogaat kenn opposition sauf le PDS bien évidemment sauf le PDS sauf le PDS vous ne cesserez jamais de nous balancer Karim Wade Karim Wade Karim Wade tout ce que le vieux brandit pour vous aider, vous nous rabattez Karim Wad, Karim Wad, Karim Wad. Karim Wad, Moïlan, c'est le Sénégal qui doit compter avant tout. Karim Wad, Moïlan, Sénégal, nous sommes venus. nous Nusogagnou. Yen Taïdi, Fini Toloni, la communauté internationale allait venir et organiser cette élection. Gagner, post élection de quelques semaines ou de de quelques mois gagner carte d'identité yi ñu làq yi ñu denc carte d'électeur yi ñu denc yépp ñu sur la table superviser les élections c'était aussi simple que ça te pour nous, pour pour nous, il fallait juste il fallait juste il fallait juste buñu aggé ci validation candidature mànkoon ni bu xalifa demul duñu dem loolu lañ leen demandé woon loolu kese lañ leen laajoon bu buggaan bokkul duñu bokk bu ay dëmb bokkul duñu bokk bu ajuba sumaare bokkul duñu bokk lii lañ leen tënkoon lii lañ leen santoon lii lañ leen ñaanoon ci c cinq ngeen ne waaw ba góor gi prévoir li muy prévoir yépp Vous l'avez encore poignardé dans le dos. Dites aux Sénégalais ce qui s'est passé. Pourquoi vous ne pouvez pas faire un recours Dites ça aux Sénégalais. On vous a biaisé. On vous a tendu un piège. Et vous êtes entré dedans. Vous avez signé des choses qu'il ne fallait pas signer. Vous gentil euh, recours non militant. yi nañu yeewu da ngeen defe ne loolu gentillesse parce que Idrissa Seck il est gentil dougalou recours parce que Sonko il est gentil le recours ils ont été bernés ils ont signé des trucs qu'il ne fallait pas signer c'est aussi simple que ça qu'est-ce qu'on vous a demandé qu'est-ce qu'on vous a demandé faites confiance au, au vieux allez avec lui simplement il savait que Macky Sall kenn mënu ko gagner ci ay ay urne ay élection non non non Macky Sall ruse les jël pour nga gagner ko mais deux élection Ko xamné ni nii jël na sëriñ se def ci pocham jël presse bi def ci pocham jël communicateur traditionnel def ci mais mieux la communauté c'est-à-dire l'Europe presque l'Europe la France en particulier mi won ci biir tay di France moo manigancé lii yépp yéen gis ngeen France 24 c'était pas pour rien man mako bind commencé diko Diop vous connaissez sa femme qui fait partie de la mouvance présidentielle qui est au sein de de l'APR vous avez préféré mettre encore pour la énième fois le Sénégal dans un trou après une' ni damm fugu jeunesse bi duñ leen ko ni ngeen wëlbati ko dem tok na fugum tok duñ leen ko bal parce que yaakaaroon ngeen ne buñu buñu buñu ñu euh, invalider candidature ñi fi nekkoon ñépp postuler vous allez tout simplement battre Macky Sall ndax xam ngeen ne le peuple euh, Macky Sall na fi jóge tout sauf Macky la ñu wax donc ku fi mën a taxaw dinañ ko voter au ngeen dem toog ci seen baay mi nga xam ne yëkkati na Senghor ci kaw teg ci suuf yëkkati di Diouf ci kaw teg ci suuf communauté internationale nasaraan si ak nit ñu bon ñi mànkoondoo ak ak Macky ak ñu bëri bëri ak Youssou Ndour à ñu bëri bëri xeex ko ak Y'en a marre si yi tey ñu tànd ko piège bu doy waar xeex ko avec l'aide de la population du Sénégal tey ñu jële ko fa bañ ko fa jëlee regretté ngeen ko il est revenu juste pour vous aider toroxal ko ba di am ndam du am ndam Vous am ndam du am ndam ko honte à vous honte à vous il fallait que ça sorte Facebook orange jaune, na fi Facebook vert, na orange vert. orange vert. jeex na c'est fini jeex na alors seen nopp ngeen waroon jox Abdoulaye wadd mu teg leen ci yoon yoon wi mu leen bëggoon teg yéen xam ngeen ko man xam naa ko xamoon ngeen ko ci seven 25 bi ngeen signé d'accord ñu àgg ci def dindi yëguñu lu dul gis leen ngeen di meeting honte à vous Dites la vérité aux Sénégalais. Ils doivent savoir, ils doivent connaître la vérité. J'en ai même vu, nous avons que nous scrutin, nous sommes dans nous allons déloger Macky Sall. Vous pensez que Macky Sall déloge ko dafa yomb non xalaatu insolence Youssou Ndour famille Ndour xalaatu le lu bon li ñu Sénégal seen bët Karim Wade rek ngeen ko teg pour la une fois le dernier combat de Abdoulaye Wade ci ay élections vous avez préféré lui tourner le dos vous nous parlez de deal Mon nay oui soo rusee am gàcce dangay wut explication xamal ngeen li mu wuti Guinée yéen xamal ngeen ko dangeen toogoon bokkoon ngeen ak moom avion dangeen toog ak Alpha Condé vous étiez présent pourquoi sénégalais ne a pas dire ko qu'il bu vous êtes expert en tout ci làmb ci ci ci ci ci ci fabriquer ay mensonges ci ci wax bu bon bo sénégalais mi ci football ñepp ay ay entraîneur lañu vous êtes champion en tout mais quand il s'agit de dire la vérité vous reculez honte à vous il fallait que ça sorte pour une Karim Wade motax ñene Khalifa bokkul Karim bokkul ok kon nañu dem dem qu'est-ce que vous avez trouvé des tas de caca couleur marron beige c'est ce que vous avez trouvé Sénégalais les Sénégalais ont voté contre Macky Sall c'est vrai mais est-ce que nous nañu vote Sénégalais bi Macky Sall li mu bëgg moy am loolu le décidé il y a plus d'un an Alingo Ndiaye il a été nommé pour faire ce sale boulot à force de vouloir détruire la famille Wade vous êtes entré dans le pétrin et c'est ça la vérité honte à vous dites la vérité aux Sénégalais Khol, donnez cette seeti seen Abdoulaye Wade ngeen baalu ko pour la énième fois il fallait mu